waaw merci léegi li site internet bii di Seneweb kan moo bëgg a wàcc foofu fii papa ok bala bëgg fàllu léegi Seneweb lu mu jot a bind ne xale bu góor bi ne moo rey di Lamine Diawo alias Modou Lo lu mu wax loolu la ñuy liir dañoo ne l'affaire du double meurtre survenu à Pikine Technopole n'a pas fini de livrer ses secrets arrêté pendant le Magal par les gendarmes de la brigade spéciale de Touba Mamadou Lamine Diawo dit Modou Lo persiste et signe qu'il a bel et bien tué tout seul Aziz Dabala ak Boubacar Gano alias Wali pour yéen ñi déggut as tuut maanaam ginnaaw bi ñu jëlijee kii nga xam ne mooy lamin Diawo alias mooduloo jële ko Touba andi ko dig bañ ko dégluwaatee nee na man lamin Diawo alias mooduloo man maa faat bakkanu Aziz Dabala ak ki nga xamante ni mooy waali booy bi man kot moom nangu na wallaay nee wallaay man kot tuumalu ci keneen si lu ñu jot bind nag nee na moom kot moo faat Aziz Dabala ak Waali moom kose léegi nee na devant les enquêteurs le maçon domicilié à Pikine Guinaw Rail a fait des confidences à glacer le sang Aziz Dabala m'a invité plusieurs reprises pour une séance d'intimité, mais je répondais toujours par la négative, à déclaré Modou mi Diaw lors de son interrogatoire. maanaam ba léegi pour sama njaboot gii nga xam ne peut-être déggunu booy bi nee na Aziz Dabala souvent daf ko doon invité pour ñu def maanaam naka sudul noonu góor góor moom nag muy bañ waaw léegi nit bu la doon invité pour nga ñëw di def naka sudul noonu ngay bañ loo doon wuti kër ah booy bay wax ba léegi de mooy li ma leen wax xay na dafa changé version ba léegi du samay wax waxu Seneweb moo ko bind ne xale bi lii la wax enquêteurs yi te gëm naa ni xale bi it moo wax li enquêteurs yi pour mën a fenn pour jaxase carte gi léegi nee na pourtant il a fini par rejoindre Aziz Dabala dans son appartement le dimanche dernier parce que il avait un souci d'argent ma mère avait une ordonnance de cinquante mille francs Aziz m'a donné les frais de transport pour que je couche avec lui kawteef en allant chez lui je n'avais pas l'intention de lui rey loolu la booy bi wax du samay wax encore une fois balaa ñu naan Kaliphone moo ni Kaliphone waxul de lii dañ ko bind mais comme ñun dañuy live dañ leen di wax lan la ñu bind lii ku ko bind mooy waa Seneweb on tapote la famille ñu bañ di fàtte tapote bi day am solo waa Seneweb ñoo ko bind ne xale bu góor bi ñu jàppee woon Touba di Lamine Diawo alias Modou Lo bañ ko àndee foofu ca digg bañ ko dégloo tey ci dimanche bi li mu jot a wax maanaam dafa changé mbir mi parce que sa Touba bañ ko jotee déglu ak gendarme yi li mu jot a wax mooy man Aziz Dabala dama dem këram pour ñaan ko paasu Touba mu bañ ma daal di génnee paaka menacé ko mu kii ma rey ko ma dem bay génn gis waali ma rey mais bañ ko andee Dakar lële daf ko jël teg na le mu ne maanaam sama yaay moo feebaroon am ordonnance fukki junni Aziz Dabala nee na pour jox la fukki junni waaye dañuy def naka sudul noonu du samay wax nag damay jottali rek nee na une fois dans l'appartement il a menacé Aziz Dabala avec benn paaka dam koy bañ wax ci français TikTok day bañ yooyu mooy paaka jam pour qu'il le donne de l'argent donne de l'argent entretenir des relations contre maanaam <laughs> mu ngi noonu contre jaww ji euh, euh, kii bi pas jaww ji gàncax gi waaw hmm, du samay wax ba léegi de balaa ñu naan Kaliphone moo wax de Seneweb lu mu bind la ne enquêteurs yi ñoo déglu booy jaaw booy jaaw lii la wax damay jottali rek ngeen baal ma de mais bañ naan Kaliphone mën nga fen jéggalu de ah dans l'appartement il a menacé Aziz Dabala avec benn paaka pour que Aziz Dabala lu donne le xaalis j'ai refusé d'entretenir des relations contre maanaam booy bi nee na dafa bañ tëdd ak Aziz Dabala bu leen fàttee nit booy bi góor la mu ne j'ai di Aziz Dabala que s'il ne me donnait pas l'argent, j'allais le vilipender. Hmm? booy boo ma joxul xaalis bi dinaa weeje de hmm? je dis à Aziz s'il me donnait pas l'argent j'allais weeje de mu ne ma yëkkati jam bi ma daa di koy menacer Aziz Dabala hmm. mu ne finalement ma rey Aziz Dabala bi ma reyee Aziz Dabala si laa fekk waali ci biir néegam ma daa koy bóom moom waaw nee na Boubacar Gano alias Waly ginnaaw bi ma boome Aziz Dabala dama ko fekk moom it ci biir néegam daal di koy na j'ai surpris le neveu Aziz qui avait mis un casque audio sur les oreilles je fais savoir Boubacar Gano alias que yow borom ñaari tur avant ma rey ah wax bu doofee nag seen nopp yi mën na wér maanaam booy bi mu ni ginnaaw bi mu faatee Aziz Dabala dafa dem ci néeg bi fekk fa xale bi di tudd waali takk ay écouteur mu ne ko yow borom ñaari tur moom it mu daal di koy faat léegi ci kanamu enquêteurs yi nag moom di alias Modou ma fit nee na li mu def rëccu si dara de mm. parce que ñaari borom tur la rey ñaar la faat jàpp na ni daal moom dafa jihaat mm. nee na ginnaaw bi mu defee jëf yooyu jël na téléphonu Aziz Dabala daa di koy dugal ci canal bi daa di koy sànni nee na balaa muy jaay bosu waali fukki junni ak juróomi junni foofu ca Touba marché okaas du samay wax ba léegi de damay jottali rek comme ñii dañ ko bind nasaraan te ñun dañuy def live ñu xaral leen ko hmm, c'est vrai c'est pas vrai allahu alam fekkeewuma booy bi mu ne ginnaaw bi mu faatee Aziz Dabala dafa dugg ci néeg bi fekk fa booy bi toog jël ay écouteur di déglu mu daa di koy faat ne ko yow borom ñaari turi la dama lay faat si la faat ñoom ñaar ñépp si la jël telefonu u Dabala sàndi ko ca kanaal ba ca ndox ma mais bu xale bi bu waali moom jaay na ko ca marché Ocass ba ca Touba da ngay xëy di jaay suba ba ngoon doo fay juuti hmm, du samay wax encore une fois ñu ni hmm, la surprenante découverte de la police dans l'appartement de Dabala lu police gis ci biir appartement ba nee bañ leen yëgalee ñaaw ñaawteef bi am ca Pikine waa police Pikine ñoo dem foofu ca technopole ca appartement ba hmm, bañ fa demee ñu gis fa néew ñu sàng ko dara maanaam Aziz Dabala dañ ko sang ab dara loolu la police yi gis police Pikine ñoo fa njëkk dem mais ba ñu duggee si appartement ba gis nañu néew Aziz Dabala dañ ko sàng <laughs> dara nee na les portes des chambres et de la cuisine étaient fermées à clé mooy maanaam néeg yeeg waañ beeg yépp dafa tëju woon mm. mm. mm. journal bii di Seneweb daa dina ba police Pikine demee ci appartement wu sëñ dabalaa fekk nañ fa yooyu de maanaam fekk nañ fa ñax mi boon fekk nañ fa boon de si lu journal bi jot a wax du waxu Californie it ba léegi pour muy clair de bu kenn wax Californie dara damay jottali rek maanaam journal bii di Seneweb mu ni ba police Pikine demee ca kër góor gi Dabala Aziz ba ñu ñëwee ci kër gi fekk nañ ci biir kër gi ñax mu verte mi fekk nañ ko fa fekk nañ fa it loolu noonu noonu mooy maanaam bu ñuy def tëddante yi yooyu ñuy def yu nooy yooyu yu ritax yooyu ay xale fi nekk du samay wax ba léegi waxu Seneweb la nee na lii la enquêteurs yi wax nee nañu ba waa police Pikine demee ca appartement góor gi Dabala fekk nañ fa ñax mi fekk nañ fa yàmbaa gi fekk nañ fa it loo waaw nga xam ne ay nit bu ñuy sëy moom lañuy ñuy lu ratax li lu mel ni dëwlin li lu nooy li lu lu glissant li mhm. fekk nañ ko fa de si seen wax du samay wax yàlla rek a xam nee yi ñu jot ci Sonatel parce que mbir bu amee Sonatel dañ leen di ne diw ak diw kan moo woo Kaliphone woo Sonatel mu ni kii nga xamante ni mooy alias Modou Lo ah alias Modou dañ ko doon fekk muy wax téléphone rek mu ngi doon wax téléphone rek mais bu mu defee jëf ji ba pare dafa def téléphone bi hors service maanaam mode avion pour bañ ku ko localiser xamul ne boo fayoon téléphone bi sax mën nañ la localiser xamu ko woon mu dindi piisam ci téléphone moom dof bi daadi di koy roof ci téléphonu kii ñu faat muy booy waali fa gën a duggale boppam moo dof de moo feebar moo wére di dëgg naa ñu naan dafa wére dëgg la kay ak a wére dof la mhm, lii day firnde ne dof la sa téléphone bi nga moom nga dem jëf-jëf ju ñaaw rey ñaari nit nga fay sa téléphone pour bañ la localiser foo nekk mais nga dindi sa puce téléphone nga dem dugal ko ci téléphone kii nga boom foofu lañ lay gën a gaaw jàppee nag moo tax nag ñii dinaan wérul lii rek nag tamit wax dëgg fa yàlla police war na mën a xam ne kii wérul mhm, ku wér du def loolu sincèrement parler ku wér du def loolu waaw dofaa ngeen bi nag maa ngi koy doog a gëm yéen seen bopp xam ngeen ne nag ndeke wérul maa ngi jégalu wérul wérul ma téye sama téléphone bi ma moomal sama bopp ma dem ma faat ñaari nit ma pare ma fay sama téléphone ne damay bañ ñu xam ne maa ngi Pikine ak Caaroy téléphone kii ma boom ma jël téléphone am ma dindi sama puce ma roof léegi yow pour ñu localiser woon la bu naree def trente minutes yow localisation bi une minute lay nekk parce que day gën a gaaw hmm, gars yi ñu ngi naan c'est pas rek du samay wax ba léegi de. nee na le mercredi 21 août 2024 Mamadou Lamine Diawo di Modou Lo accompagné de son oncle paternel Ousseynou Diawo s'est rendu euh, fële ca béréb sel ba ca Touba ñoom ñoo ànd de balaa ki nga xam ne mooy Mamadou Diawo alias Modou Lo daa di ne nijaayam bi def naa musiba de def naa tooxi duuna de faat naa Hmm. maanaam alias Modou wax na nijaay bi caaf xam na boom naa faat na hmm. mais nijaay bi ndeke moo ko boole gendarme yi waaw bu dee loolu am moom nijaay bi moom après ginnaawam bandang bu dee noonu la demee waaw parce que Mamadou Lamine Diao avait confié le, secret de son oncle paternel à Dakar. Une fois à Touba, Ousseynou a dénoncé, a son neveu aux gendarmes pour éviter d'être tué par Mamadou. Les pandores de la brigade spéciale de la cité ont alors arrêté le présumé. ah def na waree fam de def na waree fam danu koy jàppee complice nijaay bi mais xam ngeen nijaay bi jàppale nañ ko mais jàpp bi xam naa dañ koy dégluwaale mais moom bu dee nii la demee moom moom ginnaawam moom bamba manseen parce que jarbaat bi ñëw na nee na nijaay mu ne ko naam mu ne ko def naa musiba de boom naa rey naa mu ne ko rey nga mu ne ko waaw ko rey mu ne ko kii ak kii mu ne ko waa nañ dem ñu ànd dem Touba mais dafa ëlbati ku dem si ay gendarme ne caaf xam na de sama jarbaat rey na bu dee noonu la demee moom Bamba maase na moo moom moom ginnaaw bandang mais bu demee wut noonu te mu leer ko ni ki rey wax na day nekk complice parce que yoolewul da nga war a yoole yoole yoole bi moom fii def si baax sama jarbaat bu reyee ne ma kali man de damaa def tooxi duuna ma ne ko loo def mu ne damaa rey bu ma ko police ëllëg sama jarbaat bu demee ne waxoon naa Kaliphone rayna naa police daf may téye parce que dañu ne yow complice nga sa jarbaat ne woon na rey na te boole woo ko yat bi dalay dal hmm, yoon dafa sew ah allahu alam xaaral ma xool ingénieur de la communication yi yëgal leen colonel Babs. Kalifon Sall na la. mais respect mon colonel. jaajëf jaajëf. na bismillah dossier bee ngi sa kaw table loo si bëggoon a dolli. macha allah on tapote on tapote on tapote tapotage bi da am solo. s'il vous plaît ku bëgg a dina abonné ku bëggut abonné it beneen noonu doo sunu live tapote bi am na solo ku bëgg a abonné it fii la lépp continue. macha allah macha allah wax ji am na solo Kali aussi.